entreprise on nous parle de Ousmane Sonko tête de liste de l' autre côté aussi ñu ngi mettre en parallèle Barthélémy Diaz également mm-hmm. moom du ñàkk ci élection yi ñu jëm c'est pas un duel <laughs> léegi mën léegi may ma ma leen kàddu yi Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz en personne lii bi ñuy voté loi d'amnistie bi la devant maître Aïssata Tall Sall

à la mairie de si aujourd'hui, on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour réintégrer les acteurs politiques.

fa muy fa fañ koy tëjee mhm. wala fañ koy xoolee mhm. loolu ca conseil constitutionnel la mhm. moom mooy xool la muy décider n'est-ce pas mais mu tënn ci compte waaw mu tënn ci compte li tax ma teg ko mooy maanaam moom moo wax ci kàddoom moo wax ci kàddoom ne mënta compétir fii ba 2029 2029 suñ demoon élection présidentielle du compétir mënatul a nekk candidat ci mairie bu Ndakaar waaye mënoon na cee boole est-ce que dinaa mën a nekk candidat ci élection législative bi parce que compétition compétition kese la bu fekkente ni yow dañ laa génnee ci liste électorale euh, présidentielle euh, élection législative waaw voilà en tout cas élection élection la donc lii débat bu ñu war a mën a poser la euh, waaw mais voté na lii ci loi d'amnistie bi la mhm. il y mois ci la wax lii mhm. donc c' est un débat boo xamante ni je me dis que war nañ ko poser waat. xëy na ñi mu àndal ci coalition yi mën nañoo xam lii ba pare teew ñu dëggal ko comme tête de liste ci élection yi ñu jëm. man de xam nga xam nga man nekk na ay nit yoo xamante ni ñoom nee dañuy sàmm seen kàddu mais <laughs> sauver la Sénégal mais xam naa ni ñoom seen bopp lañ bëgg a sauver. léegi nag mun nga jéem a sauver sa bopp ba mujjee faagaagal sa bopp tamit loolu tamit ay problème la. sàmm sa kàddu waaye waroon nañoo mën a sàmm seen intégrité ba pare tamit. Mhm. yaa ngi dégg. Mm. ci seen intégrité Ngoné Saliou léegi wax na ko. Mm. Euh, je pense. Euh, waaw. sa kàddu démb war naa méngoo sa jëf war a mën a méngoo parce que tey. Bougane Gueye Dany par exemple moo fi waxoon Khalifa Sall quoi. nu mu ko waxoonati. ah da ngaa trahir une génération. maanaam yow yaay le système en personne. kon kañ Bougane fait partie de ce même système. waaw daan ne moom ci àddina du mës a ak nit koo xamante ne da ngay liggéey ak système. Euh, Bougane Gueye Dany moo ko waxoon Khalifa Ababacar Sall. dañ mhm. waxante dëgg. tey <laughs> Bougane Gueye Dany moomu bu mënee ñëw ànd ak xalifa euh, Sall ànd ak borom jooy yi. Euh, Pape Djibril Fall ngoone nee na dañu jooyatul waa gëj na jooy waaw ak borom nen waa noonu nen yi Anta Babacar laa ko bëggoon moomal mais fan yi am na borom. donc waa ñoo ko bokk mais Anta bu wàññee euh, euh, bor maanaam bu yëkkatee loxoom tuuti ci nen yi rek tamit prix bi dina wàññeeku parce moom mooy jaay nen. donc ñoom nañ ko waxtaanee seen biir rek mbir la boo xamante ni wala coalition la boo xamante ni la daal en dañuy sàmm seen kàddu waaye waroon na nañoo mën a sàmm seen intégrité sàmm seen image ba euh, bu ñu fëggee buntu sénégalais ne dañuy campagne dinañ am am ay kàddu gor. ak kàddu yu dëgg yoo xamante ne dinañ ko mën a teg tey ci nopp sénégalais bi parce que man je waa vois mal par exemple nit koo xamante ni ci waa bennoo maanaam beneen coalition bi nga bokk nga ñëw taxaw sama buntu kër naan danga may campagne te yooyu te yooyu yaa tax ba ma yore maanaam sénégalais yi neuf cent mille yu ma war a fay way ñu waajal ci benn intercoalition boo xam ne ñu ngi koy xalaat di wax ni dana jëmm euh, boole ci waa wallu euh, ni ñu ko tuddee sax wàllu yeewi wàllu non. nan la ñu ko tuddee sax waaw. comme bi amoon diggante PDS ak kii bi nu mu tuddee sax maa ngi fàtte. yeewi wàllu la intercoalition la intercoalition la. bu beneen buy ñëw Amadou Ba. wallaahi ils vont faciliter la tâche aux Sénégalais. jàmm ak njëriñ. jàmm ak njëriñ yëpp buñ ko naree boole. musiba ak ay ban ngay wax la grande coalition takku wàllu Sénégal takku wàllu mi ngi noonu takku wàllu bi ñu jël fas bi teg ca mboq ma ci suuf mboq ma moom la esprit esprit def xam nga man foofu lu ma fa bëggoon wax balaa muy tontu man mënuma gëm naa fekk yi genn yi nekkee bu dee da toog nekk chroniqueur wala journaliste di wax ñu ne la waroo wax ci politique léegi ku mel ne ma jàmbal jaaj mi ñu jël def ko ci liste man dama bëgg xam ban profession la yoon damaa bëgg xam ndax journaliste sa chroniqueur ñoom du ñu jënd ceeb du ñu jënd dëwlin wala nekk ñu ci comme citoyen sénégalais boo xam ne buy metti day metti ci ñoom buy neex day neex ci ñoom hmm. yow mii di wax ak yow boo waxee ci politique cee war wax boo analyser danga nga cee war a analyser comme yeneen i chroniqueur wala yeneen i journaliste parce que kaay ma wax la nag bu ñu waxee dañoo porter projet ñun ñi porté projet bi ci lañ bokk ci naka ñëpp doon laaj changement ñëpp a voté ñun disqualifié wu ñu de dañu wax ne taskatu xibaar day voté maçon day voté menuisier day voté ñooñu seen liggéey moo différent ak suñu liggéey waaye ñoo bokk nekk Sénégal mhm. su as bu bu bu bu bu gouvernement bi doxalee mu neex day neex ci ñun bu naqadee day naqadi ci ñëpp kon nañ ñu dimbalee ki ay euh, diw dafa farak diw dafa kiiw ak diw dafa am fu mu toll ku gis nen na nen a ngi bu ne nen cent cinquante lay jar dafa taxaw ak askanu senegal ne leen cent cinquante lay jar bu amee saf-safa cent vingt cinq bu Anta Babacar wàccee loxoom rek nen dina wàññeeku est que jàppoon ne mën nañoo am chance su fekkee ni yegg nañ ba teg coalition boobu noonu <laughs> malgré li ci wax yépp ci ay critique ci ay limites ci euh, maanaam ànd boo xamante ni contre nature la ak lu ñu ci mën a wax yëpp bu fekkee ni ñoom it jàpp nañu ni li ñu war a def mooy boole seen i doole faire face à Ousmane Sonko ak listam pour que li muy bëgg du ko am mooy seen majorité euh, con boole nañ seen musiba à l'Assemblée nationale seen musiba la ñu boole ah ci ànd bi noonu seen seen ànd boobu man damaa jàpp ni seen musiba la ñu boole fàtte ne Amadou Ba 34 pour cent présidentielle waaw Amadou Ba borom nouvelle responsabilité oui nga boole Khalifa Ababacar Sall. waaw malgré loo mën a wax. zéro virgule zéro zéro la am moom. ah euh, ñoom mm. Déthié waaw ba tey xoolal gis nga coalition ànd sàmm sa kàddu boobu. Mm. seen pourcentage ci présidentielle bi boo ko boolee ba plus ko 4 pour cent la. Ah. mooy ñeent. waaw ñeent. ku ñu xamul kaat. ñeenti pour cent. yaa ngi dégg. Mm. Amadou Ba borom waaw. borom nouvelle responsabilité l'homme qui a pris ses responsabilités même si c'est à 67 63 ans il n'est jamais trop tard pour prendre ses responsabilités je suis d'accord mais moom déjà pourcentage am dina wàññeeku parce que on le sait bennoo la demee woon te jamono jii bennoo ñu ngi naan ña ngay tamante dëmb ñii ànd nañoo ak Ba ñii ànd nañoo ak Macky Sall mm. donc moom pourcentage am dañ koy xoolaat Euh, euh, PDS lan lañ wax léegi ñoom Doudou Wade ak ñeneen ak ñeneen dem nañ ñoom tamit seen pourcentage waaw dàq nañ leen ça veut ñoom i tamit seen pourcentage day wàññeeku mais li may wax naan boole nañ seen musiba hmm. mooy maanaam dañuy yombal sénégalais yi la tâche dañ koy yombal sénégalais yi hmm. maanaam tànn gi day gën a yomb bu ngeen booloo hmm. def seen coalition ñëw taxaw sama euh, buntu kër naan da ngay campagne loolu man responsabilité sénégalais yi daa ci woo wala fullaak fayda sénégalais yi parce que yow bu fekkente ni maanaam euh, benn coalition la boo xamante ni bennoo wala kenn ku nekkoon ci bennoo da cee bokk doo ñëw taxaw sama buntu kër naan da may campagne alors que tey gis nañ maanaam euh, li fi Ousmane ko wax la semaine dernière. Hmm. di benn bilan bu catastrophique boo xamante ni danga ma koo bàyyil. bàyyil ma fi ay bor yoo xamante ne dama ko war a mën a fay bàyyil ma fi ay jiye ay tuuxi doono yu dul jeex ba pare war a mën a ñëw taxaw sama buntu kër naan danga may campagne pour ma voter la pour lan nga doggali ma loolu ñun ñoo ci war a am fula ñun sénégalais yi nañ ci am fula ak fayda gu mat sëkk ñeneen ñii nga xamante ni aussi ñu ngi xataraayu mais fan lañ toj mais nañ waxante dëgg ah Bougane Gueye Dany mi ngi fiy toog di wax ay eh, immigration irrégulière Ngoné Saliou wax na ko fi la dernière fois hmm. dama ne Nicaragua ma nga ne xuus ci këram non baax na bàyyi nii damay damay sedd kon yaa ngi dégg maanaam c'est des gens yoo xamante ni ku ci wax rek mais ci te demandes kii ban monde la nekk dafa am ñaari Sénégal boo xamante ni ñoom seen Sénégal la ak ñun sénégalais yi nga xamante ni ñooy ay baadoo la hmm. di dund ci dund bi bëgg changement am léegi nag les sénégalais ne ne peuvent pas vouloir une chose son contraire parce que yow munoo ñëw voter benn régime ne changement nga bëgg régime boobu bëgg ñëw bëgg a doxal xam nañ ni nag doo def toog rek di doxal di def nii yëf yi di dox assemblée ngay dem am ay loi yoo xam ne dañ ko fay yóbbu bu fekkente ni on avait des gens wala des opposants matures du ñu egg ci dissolution assemblée nationale waaye nag dañoo am ay yoo xam ne dañoo bañ ndax bañ ñu weesuwul ñu ne la dañuy dissoudre conseil économique dissoudre HCCT pour yaxanal xaalis bi 15 milliards de francs CFA ñu ne du ci dal ndax lan Ousmane Sonko day gat sa gat a loolu man yaakaaruma ni Ousmane Sonko la defanteel waaye ñun askanu Sénégal la ñuy defanteel ah, comme ils sont pas nag mature ñun na jël suñu responsabilité mooy booloo nañu waaye nag dañu koo yombalal ah. bu bis baa ñun du ñun ñoo war a wax lan lañu a nekk xam nga li nga war a def xaar di xam entre Karim Wade Macky Sall kan moo ci war a doon tête de liste Karim Wade Macky Sall Ah, Amadou Ba woo balaa muy nekk thème de liste xanaa ñibbi si. yow vocal yi ñun dañ ci sonn ñun dañ sonn ci note vocale yi nañ waxante dëgg tamit Odia léegi rek bind na ko lan moo ko teree ñëw tamit balaa nga naan naam da nga fay ne na ñëw tamit. c'est la moindre des choses ko bi war. ah mais mais à distance. oui ah, toilettage mooy ñoom duudu waat ñun ñu xeere lañ bëgg ñun dañoo bëgg nga ñëw fii ci réew mi jàkkaarloog ñëw naan ñu damani ñu naan damani la ñu lay laaj ngay tontu nga ñuy xool ci bët ñu lay xool ci bët ñu loolu lañu bëgg. mais pas ni ñu koy defee Ousmane Sonko sans surprise mu war a jàkkaarloo nag ñoo ñooñu ñuy woowee tenoor yàgg lool ci politique fas yéene def seen kéem kàttan ci boole seen i doole doon benn say ngir barrer la route à Ousmane Sonko et sa